asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci ànd ak yéen àjjuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h tey ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy euh, Yacine Sy moom nag moom mooy njiital euh, association des donneurs universels de sang donc mu nekk kuréel boo xam ne dafay yëngu ci wàllu may deret fii ci senegal donc euh, dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi balaa ñu dugg ci waxtaan bi Yacine ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi maa ngi nuyu ñëpp donc comme ni ko Ouleymatou waxee maa ngi tudd Yacine Sy nekk présidente association sénégalaise des donneurs universels de sang mhm. ADUS donc euh, maa ngi kontaan bu baax si invitation bi mhm. euh, di nuyuwaale la les membre d'ADUS mhm. di la remercier également ci euh, disponibilité bi ak teew bi nga xam ne teew nga ko tey ci suñu émission pour waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy wàllu may deret mu nekk lu am solo voilà Yacine boo ñu doon bi bi euh, kañ la juddu ak lu tax ngeen mettre ko en place. waa dinaa am kontante lool di tontu ci question boobu parce que association bi dafa nekk loo xamante ni c'est récemment créé biñ ko créé mois de juin la. Mhm. juin biñ ko créé sax jour boobu la ñuy njëkk am suñu première activité de parce que dañuy gis ni suñu centre de transfusion sanguine yi dafa manqué deret euh, et que nit ñu bari ñu ngi feebar soxla deret ñu am loolu moom moo tax ñu créé ko j'avais eu l'initiative euh, maa ko commencé nag par ay groupe WhatsApp. dem tey mhm. ba ñu nekk association donc a même eu à organiser une journée de don de sang transfusion sanguine. Mhm. Euh, même ministère de la jeunesse aussi ñoom ñoom organi organiser woon nañ fi benn journée don de sang association bi aussi taxawuloo taxawu woon na leen si bu baax. Mhm. Mhm. donc mu nekk loo xam ne c'est récent parce que juin quand même yàggul euh, mais yow en tant que euh, tel lan moo la motiver exactement da nga daan bokk avant ci association de don de sang wala lan moo yëkkati sursaut boobu en fait d'un coup. waa ban musuma bokk ci benn association doon de sang mhm. juste que dama def benn constat man déjà donneur universel la mhm. je suis négatif te au négatif ku ko wax xam ne mën na may deretam ñëpp. donc man je me dis que je suis missionnaire. Mhm. comme que missionnaire la sama objectif sama liggéey moo war a nekk maye deret. Mhm. donc par là laa am euh, idée boobu noonu ak gis aussi taux de mortalité élevé bi nga xamante ni moom la ñuy constater chaque année. Mhm. te lu koy waral mooy manqué deret. donc si laa am initiative boobu noonu et j'en ai discuté avec des amis de passage maa ngi leen di nuyu euh, ñoom Assou Ndeye Fatou Souleymane. Euh, Madiagne ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu su ma limee damay jum discuter ak ñoom ñu créer groupe whatsapp boobu noonu ba tey mu nekk association juste pour di euh, aider suñu centre de transfusion sanguine te loolu loo xamante ni yamul Dakar kese ce sera décentralisé sur toute l'étendue du territoire incha allah. Mm-hmm. voilà mu nekk kon euh, benn association moom ne teg ngeen ko donc euh, association bannaa bi nga xam ne teg ngeen ko nee ngeen déroulé ngeen seen première activité ba ngeen def journée de don de sang ak ministère de la jeunesse yéen leen approché wala exactement collaboration bi naka la demee. effectivement suñu première journée don de sang bi moom mooy le juin bi ñu jox plus d'une cinquantaine de poches de sang au centre de transfusion sanguine avec l'appui aussi du ministère de la jeunesse maa ngi lancé waale di leen nuyu waale madame Néné Fatoumata moo ñu jàppale bu baax déjà sax suñu Euh, assemblée générale bi ci seen salle yi lañ ko defee mhm. donc ñun dañoo def demande mhm. bind lettre comme tout le monde dem adressé ko ko mhm. comme jeunesse comme que ñun ay jeunes kese lañu ñu dem par aussi ñoom ñu soutenir ñu ñu am suñu journée don de sang boobu te incha allah sax le 26 bëgg nañu organiser waat beneen journée don de sang en Saint-Louis euh, voilà ñu nekk ci jamono joo xamante ne aussi euh, ga jamono Covid la mu nekk une situation particulière gis nañ ni ñi dañuy ragal donc boobu est-ce que amu leen doon yeen problème pour mobiliser les gens pour ñu maye seen deret ci seen activité bu njëkk bi. waa déjà Covid bi ba muy ñëw mois de juin mënoon nañu wax sax ni instant boobu la nit ñi gënoon ragal Covid parce que instant bi comme l'a si bien dit le président de la République. Mhm. il faut vivre avec le virus instant bi nit ñi sax dugal nañu virus bi ci ñoom mais au moment bi ñu ko doon def instant boobu nit ñi dañoo tiitoon. Mhm. donc dañu yaakaaroon ni sax nit ñi duñu ñeme dem mais quand ñu rassurer leen parce que euh, kii ñu def euh, barrière kii ñu ñu tëral muy euh, mesure barrière yi ñu tëral na ñun ñu a sawar def ko que moom la def bi ñuy dem dañu yóbbu suñu ay gel yóbbu suñu ay thermoflash tout ça donc euh, ñu motiver jeunes yi te des jeunes engagés donc ñoom xam nañu carrément lan moo ci don de sang on n'avait pas un, un problème vraiment mm-hmm. amuñu ci woon benn problème mm-hmm. euh, parce que bu fekkee ne yéen association bi la peut-être y a pas de problème parce que euh, engagement bu ngeen am la mais tey nit ki jógee rek fële ñëw nekk volontariste ne damay maye sama deret peut-être ci ñooñu la réticence yi di di di amee naka ngeen def ba convaincre ñooñu da ngeen amoon ay activités de sensibilisation au préalable wala exactement. waaw comme ni ma la ko waxee rek xam nga instant bi moom lépp mi ngi jàll ci réseaux sociaux. dañ mhm. comme que instant boobu noonu mënuñu woon def ay rassemblement pour mën a def ay journée de sensibilisation déjà a dañ ko prévoir woon récemment Aliou Ngouille Ndiaye def interdiction ba mënuñu woon def loolu mais ci suñu programme yi la nekk. Mhm. donc ci réseaux sociaux yi par là aussi suñ ñu woo ñuy wax ak ñoom di di leen convaincre de def sensibilisation. euh, WhatsApp sensibilisation peut-être euh, bouche à oreille donc ci noonu lañu ñu parvenir tey ba am loolu yëpp mais nag dañuy pousser jeunes yi à ce que ñu bañ jël Covid bi comme genre lu ñu ragal. Mhm. ba bëri a tax du ñu mën a maye deret parce que lii c'est très important ku xam maye deret xam importance am vraiment. Mhm. Euh, tey même au-delà de Covid bi gis nañ ne Sénégalais yi amuñu woon euh, maanaam euh, bokkuloon ci seen culture ñuy dem di maye deret peut-être tey Covid bi mun na nekk prétexte mais ni ñuy dafa néew par rapport ak li nga xam ne moom mooy norme yu OMS teg ak yooyu donc tey jii même par rapport à dafa am challenge bu mag boo xam ne am na si. waaw effectivement parce que jeunes yi dañu remarqué même pas jeunes yi loolu nekkoon na lu nga xamante ni suñu culture la maanaam maye deret bokk ci woon. Mhm. ñu bare dañ koo ragaloon euh, am na ñoo xamante ni boo leen waxee ñun oh, mhm. di la indil ay prétexte yoo xamante ni. doo xam tegwul fenn doo xam noo koy noo mhm. mais tey jii ku ci nekk bu ko defee sa bopp que ni deret jooju yow mën nga ko soxla. que sa mbokk mën ko mën na ko soxla parce que épargne wul kenn mm-hmm. tey jii mën nga ni dara jotuma mais nga génn ñaanal ma ko yàlla kenn accident am nga perdre du sang mm-hmm. kon soxla nga yow tey ku la dimbali mm-hmm. kon ku soxla ki ko dimbali dans les normes dafa war dimbali waate donc bu ñu amee esprit boobu rek je pense que ni dinañ dem donc euh, il est que jeunes yi sax léegi lay wax man si jeunes lay gën a appuyer puisque nous sommes que ñu dindi euh, esprit boobu ñu xamante ni moom la ñu amoon muy bañ a maye deret di indi ay prétexte euh, da aw ma deret wala ay alibi yoo xamante ni amul fu mu tegewu Mm-hmm. voilà euh, tey aussi gis nañ ne CNTS euh, centre national de transfusion sanguine ñoom ñooy euh, maanaam kuréel bi nga xam ne vraiment ñoom ñoo taxaw ci ci réew mi ci ci loolu ñoom dañuy génn tout le temps ñoom tamit di di di wax ne y a de sang deret amul ak yooyu dañ koy jooy tout temps tey seen approche ak ñooñu exactement aussi naka la naka la demee. waaw de passage maa ngi nuyu madame Diallo moom mooy chef service bi nekk foofu noonu elle a été disponible bi ñu ñëwee def suñu don de sang bi dañu ñëw. comme citoyen normal parce que ñëw su wax ko ni ko dañu am envie def don de sang parce que dañu gis ni pénurie de sang bi bare na dee bi bare na donc nous sommes une association elle a été ouverte ñu permettre ñu def euh, don de sang bi franchement si nu mu gën a rafetee donc ba léegi ñu entretenir de de bonnes relations avec elle avec waa centre de transfusion sanguine déjà hier sax je l'ai eu je l'ai o au téléphone donc euh, loolu daal la ñu ñoom déjà mi ngi may relancer waa sax di ma wax que ne soxlawaat beneen journée don de sang mais comme que ñun nous sommes une association décentralisée euh, dañu bëgg dem ci région yëpp parce que Dakar kese moomuñu nous sommes national. Mm -hmm. Mm -hmm. voilà euh, par rapport ak loolu fu mu toll nii aussi est-ce que peut-être am ngeen ay antenne pour l'instant ci yenn région yi wala yéen a ngi euh, nekk ci dynamique boobu actuellement. waaw ñu ngi ci dynamique boobu parce que région bu nekk dañuy créer ay responsables de cellule mooy région bu nekk am nañ ku ñu fay représenter ñooñu aussi dañuy def ay liggéey yu mucc Ayib moom moo tax sax ñu sañ a tey jii ni dañuy def don de sang à Saint-Louis donc euh, am ay représentants ci région yëpp macha allah. Euh, donc ñu ngi liggéey daal liggéey bu rafet ñu ngi ñaan que mu de gën a dem ci kanam parce que lii ñuy def yëpp suñu dëkk rek lañ ko defal parce que nekk ay donneur universel je pense que ni seen rôle rek moom mooy dimbali askanam. Mhm. Euh, voilà mais gis nañ ne aussi Yacine peut-être activités yi ngeen di bëgg a taxaw ni engagement bi kese doyul. Mhm. ça demande aussi des moyens tey trouver ay euh, moyens pour di mën a mëne di dérouler seen activités yi ngeen di dëgmal. waa effectivement association boo gis tey soxla na ay moyen parce que moom moo lay permettre tey sa activité boo mën a am rek mu mu accompagner la tey ji comme ni ma la ko waxee suñu premier partenaire moom mooy ministère de la jeunesse ñoom ñoo ñu épaulé woon ci suñu journée don de sang bi à Saint-Louis aussi ñun on, on se débrouille avec nos propres moyens tey dañuy def ay cotisation muy muy carte de membre yi moom la ñuy jël euh, di ko utiliser mais euh, pour l'instant on aimerait même bien lancer un appel solennel priorité à à, le président de la République son excellence pour que une telle association dañ ko war a appuyer parce que une association de donneurs universels donc ñooñu daleen leen war a dimbali ba tey fu ñu dërmët ni dañ fay defi don de sang euh, ñu war leen mën a taxaw mm-hmm. association de donneurs universels parce que wax nga ko sang ci njalbeen euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy kon groupe Sangaye am na ay donneurs universels tey Ah, tur bi peut-être mën na am benn dichotomie boo xam ne dina ko am euh, tey li nga xam ne moom mooy donneur universel bi association bi c'est parce que peut-être tey yéen ñi fa nekk association bi ñoom ñëpp ay donneur universel lañu wala da ngeen ko def parce que yéenay donneur universel yi. waa maanaam pour dire euh, que da ngeen di joxe du cent quoi dans l' appellation. non non donneur universel dans le sens où O négatif moom moo ñu gën a tax a jóg. Mhm. mais nag on a regroupé la famille O O positif ak O négatif puisque les scientifiques bi ñuy def seen bi ñuy catégoriser groupe sanguin yi quatre lañ ko def donc groupe O. au au positif on peut dire que il est il est uniquement universel au registre plus maanaam képp ku nga xamante plus la mën na la may bu dee au négatif la nag mën na may ñëpp moom mooy donc raison pour laquelle ñu jël appellation boobu def universel mais pas le fait que ni euh, dañuy euh, xamoon ni ko waxee léegi. Mm-hmm. donc mais daal dañ ñu ngi fi daal pour dimbali képp ku nga xamante ne soxla na deret. parce que nous pour leeral parce que tey euh, mën na am kenn dégg ne ah peut-être association bi donneur universel yi kese ñoo fa war a dem ak genre pour leeral foofu. ci je comprends xam naa ci côté membre yi ngay mm-hmm, ngay wax parce que ñun suñu membre yi euh, am na ay membre sympathisant mais association bi en tant que tel eau yi kese lay jël. mais quand bu fekkee koo xamante ni dafa ñëw am beneen groupe sanguin dinañ la jël boole la ci association bi mais tu seras membre sympathisant. mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy les membres phares de la ñoom ñooy la famille O mooy O négatif ak O positif. d' accord c' fàttali rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu dalal Yacine Sy moom mooy kon présidente association des donneurs universels de sang euh, gis nañ ne aussi. c'est vrai am na ay association yu fi nekk comme par exemple bi euh, Thierno Lecompte Seck jiite les donneurs bénévoles ñoom ñu am ci expérience bu baax a baax te est-ce que aussi approche ngeen euh, genre association yooyu noonu ci seen lutte waa loolu moom ñu ngi koy daan def ay jéego incha allah parce que jotuñu woon def approche benn association. Mhm. donc on s'est levé ñu jug ñun kase mais incha allah dinañ leen jege parce que nit ku nekk booy dem fenn seetal ña nga xamante ne ñoo la jiit ñu mën la tette woon la ci yoon parce que seen ay xalaat dinañ ko soxla loolu parce que ñun soxla nañu xalaatu ñëpp te ñooñu surtout ñooñi nga xam ne yàgg nañ ciy yëngu soxla nañ seen xalaat bu baax te dinañ def kemte ay kàttan pour jéem am relation ak ñoom incha allah. Mhm. Euh, wallu accident gis nañ ne bëri na tey euh, ay cas accident ci réew mi ba tax na ñooñu du jour au lendemain mun nga jékki-jékki nga soxla deret parce que génn nga nga am un accident kenn ñaanu ko et mais tey bu weesoo loolu aussi gis nañ ne y des gens yoo xamante ne ñoom tout le temps ils sont en besoin de sang je par exemple ñi nga xam ne ñu ngi am ay drépano yeeg ñi nga xamante ne ñu ngi am hémophilie ñeneen ak ñeneen genre groupe de personnes yooyu noonu Euh, voilà. waa mm-hmm. effectivement ñun ñu on est là pour tout le monde mais nag ñun dafa am nu nga xamante ni moom la ñuy marché tey jii don de sang parce que dañu am benn plateforme d' alerte parce que ñun limité wuñu seulement si ay def don de temps centre de transfusion sanguine dañu am plateforme d' alerte bu nga xam dafa am ay membres disponibles si pour que à chaque fois que le besoin se présente ku am benn cas on a même. Euh, Euh, kii ci cas yu bare macha allah. Mhm. donc euh, ñu dimbali leen membres yi disponible macha allah dem euh, venir leen en donc on a une plateforme concernant cela. Euh, par rapport à loolu mais nag ñu dafa am nu nga xamante ne moom la ñuy doxalee tey jii bu demande bi amee tey dañuy képp ki nga xamante ne xale nga wala ngay jigéen ak aussi dañuy tenir en compte aussi si l'âge mhm. parce que tey xale bu soxla ak mag bu soxla franchement ñu jox xale bi moom moo gën donc dañuy tenir en compte si âge bi dañuy tenir en compte si jigéen bi dañuy tenir en compte aussi su y a beaucoup yoo xam ne dañ koy tenir en compte avant que ñuy def euh, euh, di may nit deret mhm. Mhm. parce que des fois da ngay jékki-jékki sax gis ci euh, Facebook bi wala ci peut-être dans les autres réseaux sociaux ku def alerte ne ah, personne dafa soxla deret ak yooyu tel numéro numéro pour mun être euh, appelé tel numéro pour mën ko venir en aide yéen est-ce que tey da ngeen def genre peut-être cellule pour di di répertorier genre yooyu noonu. waaw effectivement dañuy jot alerte yooyu dañ koy jot tout le temps tout le temps tout le temps mais nag à chaque fois bu ñu ko jotee tout le temps ci groupe bi sax dañ koy wax ku jut gis alerte fenn bul ko dugalugum jox ñu ko man présidente wala nga jox ko SG parce que dañuy def ay investigation xool ba xam réellement euh, ñooñu ils ont besoin du sang ou pas. Mm. donc ñu dañuy jot alerte moom moo raison pour laquelle même. ñu amoon ñu am suñu plateforme bi mooy plateforme d'alerte boobu donc dañuy jot alerte d'urgence yooyu. Mhm. Mhm. voilà c'est important euh, tey aussi gis nañ ne les femmes ñi nga xam ne euh, bu ñu demee ba war na lor war vraiment accoucher et tout dañuy jànkonteel ay problèmes deret surtout ci yenn zone rurale yi nga xam ne amuñu yenn infrastructure déjà banque de sens yi Sénégal euh, mu ngi noonu rek lu yàlla xam doy na plateau médical bi c'est c'est pas trop relevé donc mu nekk ne daal dafa bëri ay complications daf ci am euh, tey li nga xam ne moom mortalité maternelle beeg yooyu mu poser aussi un problème. waaw effectivement wax nga dëgg jigéen ñi soxna yi si macha allah dañ ciy jànkonte ay problèmes yu bari si ay accouchement déjà ñi a ci loolu donc comme ni ko waxee si zone rurale yi aussi ñoom tamit dañuy am problème boobu raison pour laquelle tey jii euh, une telle association mérite d'être soutenue ba tey jii ñu mën a dem comme que nous sommes dem ci village yi lépp def ay don de sang def sensibilisation parce que balaa ngay inciter aussi nit ki à ce que mu def don de sang danga koy sensibiliser mu xam lan mooy don de sang pour que tey ji femme yooyu noonu wala lépp lu mën a am ñoom ñu mën a xam luy loolu mën leen venir en aide ñu ngi ci liggéey boobu noonu tamit donc euh, macha allah ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey boobu. Mhm. voilà pour en revenir euh, ci wàllu sensibilisation bi wax nga ko léegi ci ci wax c'est important aussi ñu wax nit ñi lan mooy wàllu deret au moins ñu am benn béyaabaa bi mm. ne toog na peut-être nekk këram bëgg a maye deret di déglu peut-être émission bi kooku lan la war a xam ci wàllu maye deret lan mooy préalable yi déjà critères yi pour que moom mu dem war a mën a maye deret waaw effectivement ki nga xamante ni yow da war a mën a maye deret mooy déjà à part là de war nga am 18 ans donc am na sax yu ñuy wax yeneen âge mais bon je vais pas me prononcer sur ça parce que nañu jël âge bi nga mm-hmm. ans jusqu'à 60 ans am nañu wax plus sax donc yow boo boo aptee nga dem xool sa wér-gu-yaram ñun la yow apte nga mën a maye deret amoo benn feebar bu nga xamante ni tey jii muy fe maladie transmissible wala je ne sais pas yu nga xamante ni mën na empêcher nit ki mm-hmm. mu mu la loolu donc yow war nga mën a dem maye deret maye deret nag bu dee góor comme ni ñu koy waxee chaque trois mois mën na ko def bu dee jigéen chaque quatre mois mën na ko def parce que jigéen avec euh, les règles xam naa mm-hmm. ça joue donc yow mi nga xamante ne nag yow da ngay jug pour maye deret lu tax nga war a mën ko def mooy devoir la te devoir mooy la da ngay sauver vie yow ci tu te dis que ni yow da jug pour sauver vie donc loolu rek waroon na doy comme euh, lu tax nit war a mën a def engagé wu pour mën a maye deret donc mm-hmm. yow mi toog sa kër tey ji yore sa euh, toog ni man dama bëgg may deret mais xaw ma maa ngi lay ñaante nga dem jege benn bërëbu santé ñu testé sa yaram saytu ko ba pare buñ la waxee ni la apte nga a dem chaque 3 mois nga koy def wala sax si année bi nga def ko deux fois wàññiw la dara fayum yàlla rek nga ciy am donc te di nga aussi sa wérgu mhm. yaram yaram kon don nekk na lu nga xamante ni pas seulement pour nit bi nga koy jox la mais yow aussi ndax da nga ciy saytuwaale sa wérgu yaram mhm. loolu c'est important parce tey bëri ñoo xam ne sax ñu ngi ciy dëkk bi te xamuñu sax seen groupe sanguin effectivement effectivement moo tax journée de sensibilisation bi ñu mujjoon bu ñu bëggoon def avant que ministre de l' intérieur macha allah si seen euh, li ñu tëral règle yi ñu tëral macha allah euh, mesure drastique yi ñu jël ci loolu avant ñu un mois yi mu koy def nii dañu waxoon dañuy def journée de sensibilisation plus dépistage mm-hmm. euh, groupe sangan maanaam permettre nit ñi ñu baare ñu xam lan mooy seen groupe sanguin parce que ñun loolu tamit dafa bokk ci suñu xeex parce que bu ñuy xool ci léegi ci kii yi rek la am permis yi donc te loolu nekk na loo xam nit ku nekk war nga xam luy sa groupe sanguin te ñun liggéeyee loolu la macha allah jug pour xeex ku nekk am sa groupe sanguin s'il le faut ñu def ko sous forme de bracelet ñu defal la ko sa loxo wala dara cas d'accident day am. Mm-hmm. donc soo soo soo amee takk rek bu ñu xoolee sa bracelet wala benn objet si yow gis ni ñu marqué ci o wala dara subitement pour trouver le distance ce sera trop facile. Mm-hmm. Euh, parce que sax euh, ay acteurs sax man yoo xam ne de la santé yu ma fi invité ñu doon wax que ni ñoom ils comprenaient pas le fait que euh, groupe sanguin ñu def ko kese ci ne am na ñaanuñu ko ci par exemple Ndiaga Ndiaye bus transport boo xam ne en commun la donc ça veut dire que chauffeur bi kese bu boobaa la ñuy sauver ñeneen yi. <laughs> waaw effectivement eh, ñooñu wax nañ dëgg parce que nekk na lu nga xamante ne tey man gisoon naa ko xaw ma nan lañ ko ba xam c'était permis ou pas mais gisoon naa ko plus ñu def ko ci pièce d'identité yi. pourquoi pas waaw mm-hmm. pourquoi pas moom laa gënoon gis ko ci permis yi parce que permis du ñëpp am am euh, opportunité pour am permis mm-hmm. ndax du ñëpp mën a dawal du ñëpp am oto pour dawal leen compter chauffeurs yi la peut ak quelques personnes. Mhm. mais nag li nga xam ne mooy carte d'identité xam ne nit ki am na ko donc loolu je pense que ni waroon nañ ko mën a jéem insérer ci carte d'identité yi moo moo gënoon. Mhm. voilà ba tey rek ñu woy ci ci waxtaan bi parce que tey wàllu wàllub euh, deret aussi dafa nekk loo xam ne dafa euh, dafa dafa dafa sensible parce que tey bëri na ci sax ay culture yoo xam ne ñoom euh, dañ koy bañ parce que woy duñu mélanger sunu deret ak xamoo kan ngay joxe particulière yoo xam ne ñu bañ ko nangu ko mais mu ngi am ci ci dëkk bi. waaye effectivement loolu moom xam nga suñu suñu fi lañ ko fekk. Mhm. ay affaire de mythe yi noonu fi lañ ko fekk de fi lañ koy bàyyi mais quand même avec cette jeunesse qu'on a aujourd'hui je pense que ni cette mentalité commence à être dépassée. waaw ngi wàññeeku bu baax te loolu amul sens quoi. parce que mhm. deret bi tey jii moom lay wax man may O négatif kee di négatif tey bu ñu defee analyse même chose dañuy trouver. Mhm. li ñuy trouver globine yeeg hématites yeeg trouvé ci kee kon ay ay histoire de race ay caste ay affaires yooyu noonu non sa loolu amul importance. Mm-hmm. parce que tey jii boo feebaree ya ki lay may deret sax am na muy demee deret bi ñu lay sol doo xam kooku lan la. Mm-hmm. kon benn instant amul sens. Mm-hmm. amul sens te en plus euh, demee deret c'est tellement important yaa ngi koy wax sànq dafay tax nga xam yow mi sax sa état de santé. parce que xam nañ ne nga jóg nii dem defi bilan de santé du ñëpp am moyen yooyu mais tey boo demee may sa deret. bu dee am na feebar bu nekk ci yow dinañ loolu aussi c'est une chose boo xam ne mën na wax sànq rek ma ne ki toog ci tey yow boo fekkee da nga dem may ji deret dinañ la wax analyse la ngay def gratuitement boo xamante ne ce sera gratuit pour toi boo ko defee feebar am ci yow dinañ ko détecter te buñ ko détecter dinañ la la ah diwkat lii comme ça yow nga jug sa yaram boo wax la bu dee leneen ak leneen aussi ñu wax la nga mën a farlu ko xam moo tax moom laa wax ma ne du question da ngay kase mais yow sa bopp da ngay sauver ndax di nga xam sa état de santé. Mm-hmm. et bi ma fi dalalee aussi waa association bénévole moom wax na ma ni moom ni mu yàgg di may deret dafa dem sax ba am incidence ci wér-gu-yaramam parce que il se sent beaucoup très bien maanaam daal bu toogee nee lu yàgg sax mayewul deret da koy sentir ci yaramam. day yaram bi day mel ni lu diis. n'est-ce pas déjà am daf ci am amour. Mhm. parce que amour boobu noonu moom mooy manifesté wu ci moom ba muy sentir loolu parce que nit ko aussi da nga war di maye deret parce que loolu ngay génne du da yàqul ci yow dara. au mhm. contraire defaraat sa bopp sax. le fait que nga génne dangay ngay defaraat te boo ko defee si saa si mu ñëwaat ah. ñu mhm. mayaat la quelque euh, quelque temps 3 mois 4 mois lépp lu nga xamante ne kii woon na ci yow mu ñëwaat nga amaat deret bu bees sax kon yàqul ci nit dara quoi. kooku dafa nit ki boo tàmmee maye deret rek day dem ba danga ci am amour parce que yàlla rek la tax a jóg ak mm-hmm. euh, dimbali jaam yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, dañu gis ne aussi plateau médical Sénégal dafa dafa dafa metti parce que tey jii euh, li nga xam ne mooy wàllu analyse yeeg yooyu dangay dem hôpital ñu daw loola et tout boo amul xaalis moom daanaka da ngay tumuranke euh, tey aussi au delà des mains deret bi est ce que tamit yéen a ngi def euh, prévoir parce que comme c' est une association jeune est ce que yéen ngi prévoir aussi gën a pousse seen xeex ak seen militantisme ci côté tey côté boobu noonu pour que sénégalais gën a mën a am accès maanaam au à des soins de qualité te seen poste du ci loru macha waaw ñun sax effectivement loolu dafa bokk ci suñu ci suñu ay objectif maanaam tey jii ku wax groupe sanguin O xam importance am moom laa doon wax ma ni ñun nekk ñu ñu nga xamante ni dañu war a sax dem hôpital di am ay problème ñu ñuy wax dangay war a fay lii wala danga fak ordonnance temps temps temps boo ko amul doo mën accès wala nga am problème à l'hôpital parce que comme nous sommes universels donc pas pour ñu ñëpp mais pour ñëpp tey santé bi war na mën a évoluer ah, euh, d'une manière bu nga xamante ni tey jii loolu waratul nekk problème te la santé prime surtout kon loolu warul tax tey jii ku ñëw hôpital am pro déjà j'en ai des cas am na histoire bu ñu ma raconté ba nit ki def ci mës mujjee gaañu mhm. ndax lan ah, dafa ñëw ñu ne ko il faut nga jënd lii il faut nga jënd la mais pourquoi parce que vie moo ëpp importance yenn yi mhm. donc ñun dañu euh, bëgg aussi œuvrer ci social dans le social parce que bëgg nañu tey jii mais ak comme que doole yi mateegu ko mais incha allah mek nekk na suñu ay mbébét di defaale don médicament mhm. maanaam tey képp ku ñu euh, jox deret comme par exemple mu nekk femme bu doon accoucher ñu jox la deret ñaan nañu yàlla ci sa ordonnance yi ngay am ñu jël ci quelque nit lii kat association bi moo la ko dimbalee loolu nag bokk na ci li nga xamante ne moom mooy suñu xeex ci biir association bi te incha allah daañu ko tëral incha allah. Mm-hmm. c'est important mm-hmm. parce que tey euh, peut-être état teg na ay euh, programme yu mel ni ay couverture maladie universelle mais gis nañ ne peut-être ba léegi naam sax am na sénégal yu bëri yoo xam ne ñoom euh, inscrit nañ ci et tout mais ba tey des na ñoo xam ne vraiment bénéficier wuñu daal d'une bonne couverture. maladie. waaw loolu moom c'est vrai loolu moom c'est vrai donc euh, franchement li couverture maladie boobu c'est à saluer. Mm-hmm. parce que am permettre na peut-être ñëpp xëy na mënuñu leen couvrir mais mm-hmm. permettre na am na ñoo xam ne couvrir na leen. Mm-hmm. mais nag reste à voir ko ticket yi ñu wàññi ko. parce que néew du doole yi dañoo bare Sénégal néew du doole la ëpp tey ñëpp am néew ñu wàññi ticket yi ordonnance yi aussi ñu xool état bi nu mu mënee subventionné benn somme pour ordonnance yi selon les maladies man daal du selon sama sogo te loolu laay loolu la ñuy ñaan que subvention di am ci côté santé vraiment. Mhm. Mhm. et Covid bi wane na que ne vraiment santé moom ku ko toppatoowul rek yaa ngi juum parce que moom mooy euh, moom mooy surtout comme ni nga ko waxee léegi donc euh, je pense que Covid bi moom dafa war nekk une leçon boo xamante ne dañ ci jaare gën a jël en compte wàllu santé parce que doon na mbir moo xam ne xaw nañ ko ni xamoon nañ ko négligé un peu. waaw effectivement Covid bi moom sax dafa yee nit ñi ci lu bare déjà incité nañ nit ñi à ce ñu set. parce que euh, qui parle de propreté parle de santé. Mm-hmm. donc incité na nit ñi à ce que ñu set incité na nit ñi aussi à ñu xam lan mooy wérgu yaram dëgg-dëgg. Mm-hmm. parce que euh, tey jii ñu baree ragaloon euh, yenn feebar yu bare umpale woon nañ ko wala yenn feebar yu bare ñemewuñu ko woon tey Covid bi sax dafa leen poussé ñu gën a ragal déjà mais Covid bi permettre na tey nit ñi ñu gën a xam lan mooy santé. ñu gën a xam lan mooy fa fagarlu farlu ni ñu koy waxee. Mm-hmm. Euh, tey aussi ñi nga xam ne yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ñoom itamit gis nañ ne même ñi nga xam ne ñoom ñooy fajkat yi sax ils ont des problèmes donc euh, demeewul noonu la preuve syndicat yi dañuy jóg di di di casse tout le temps et tout te loolu yëpp dafa bokk ci loo xam ne peut-être moom mooy moom mooy dëgëral système de santé parce que ñoom ñooy porté euh, tey li nga xam ne moom mooy la santé des des personnes gis nañ li xew ak Covid bi avec les professeurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ci xeex bi macha allah boobu ba léegi euh, di leen kon encourager rek di leen wax aussi félicitations au au passage. Euh, tey jii euh, def ngeen li nga xam ne moom mooy première activité ci euh, association bi ci wàllu don de sang beneen étape bi ci loo xamante ne peut-être lu lu jàmp lay doon à court terme lan lan lay doon waaw comme ni ñu ko waxee nii rek def nañu première étape don de dañu bëggoon defaat journée de sensibilisation plus dépistage groupe sanguin par euh, par ñu interdire euh, kii yi rassemblement yeeg yooyu noonu donc instant bi ñu ne kon nañ dem Saint-Louis def fa suñu don de sang léegi nag bis bu ñu dindee rassemble dindi lever interdiction bi euh, ministre de l'intérieur def ñu commencé nag def ay journée de sensibilisation di dem ci région par région di dem ci village yi ça def suñu journée de sensibilisation lan mooy don de sang permettre leen aussi ñu mën a xam seen appartenance groupe sanguin. Mhm. actuellement yéen a ngi toll ci ñaata membre ci association waa dem nañu plus de deux cent personnes macha allah te dañuy invité aussi ñu fason un appel pour toute personne bi nga xamante ne am nga groupe sanguin. O positif ak O négatif nga ñëw adhérer association bi pour que ñu mën a dimbali nit ñi pour que ñun tamit ñu mën dimbali suñu bopp parce que ñun kese ñoo mën a dimbali suñu bopp. Mm-hmm. O positif O O O positif rek ko mën a may ak O négatif O négatif malheureusement kenn mënu ko may ku O négatif donc il faut que ñu xamante jàppalante pour mën a dimbali nit ñi mais aussi dimbali suñu bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, à part des jeunes est-ce que am na aussi euh, ñoo xamante ne ils sont un peu plus âgés. waaw am na ñu am ñu âgé tout ça am benn groupe WhatsApp. donc am na ñu nga xamante ne ay membre lañ ci biir groupe bi mais am na ñoo xam ne ay kilifa lañu ay mag lañu donc du ñu mën tout le temps di assister ay groupe ñooñu dañuy nekk à que information bu am rek dal leen koy wax ñu parce que du ñu mën a tout le temps ak seen téléphone yi mag ak yaa ma gën ak kilifa. xam nga tout temps du mën a déglu ay message message mais information bu am rek soit man dama leen tenir informé wala SG tenir leen informé pour l' instant compte am nañu plus de 200 membres. macha mhm. allah. voilà c'est euh, yaa ngi wax sànq aussi point bu am solo ci wàllub euh, système de santé mooy médicament médicament tamit dafa nekk mbir mu doy wax ba tax na tey askan wi bëri na ci ñoo xam ne euh, daw métit gi am ci jot yenn garab yi moo tax ñuy mujj di tourner wu vers les maama nag ak yooyu te lu ci bëri parfois mun na leen andil ay ay lorange. waaw effectivement mën na leen indil ay lorange wala parfois sax ñuy jënd garab yu nga xamante ni ci ay marché la. Mm-hmm. donc euh, loolu yëpp moom laay wax ma ni xëy na peut-être jafe-jafe àdduna moo leen tee ak cherange médicament yi tellement ko dañ dañu cher donc moom laa wax sànq ma ni loolu tey ji ndimbal la tey ñaan la si état bi à ce mu def benn subvention par rapport euh, au médicament tey euh, médicament bu ci nekk mu def ni def na subventionné wala jël na si benn pourcentage boo xamante ne moo koy fay après nit ki fay ko loolu dina permettre tey ji nit ki amul dara man mi xam ma mën a am peut-être si sama médicament bi nga xam ne soxla naa ko. Mhm. Mhm. et puis na si ay eh, garab yam day jékki-jékki nekk en rupture tamit nit ki aussi nekk ci ci jaaxle aussi. waaw effectivement loolu aussi dinañ ko fi constaté nañ ko fi même période euh, Covid bi aussi. Mhm. constaté nañ ko fi bu baax te comme que garab yi la le le plus souvent jógewul fii du fii lañ koy defaree donc euh, dañ koy jëlee bitim réew indi ko donc loolu aussi liggéeyu état la à ce que mu gën a mën di jënd ay garab di ko dugal ci partie non scientifique aussi ñu mën a jël di créer di xalaat di mën a def ay médicament parce que on a plante plantes naturelles yu nga xamante ni tey jii je pense que macha allah Sénégal ay tête rek a fi nekk ay scientifique rek a fi nekk donc je pense que war nañu mën a xalaat di créer yenn médicament yi pour que ñu mën di dimbali suñu bopp puisque nous n'avons pas assez de de force amuñu yenn yenn euh, xaalis yi pour mën a tout le temps di jënd médicaments yu cher yi mm-hmm. wala di ko jëlee bitim réew. Mm-hmm. buñ ko xeep parce que bëri na ci sax yoo xam ne nasaraan bi da koy ñëw jël fii yóbbu ko transformé ko ñëw jaayaat ñu ko fii ci lu cher te dañ koy jënd. donc comme li ñu naan parfois nit ki mën na xeeb lam yor parce que daf ko jege ñàkkal ko fayda alors que demee noonu sànq ñu ngi ciy interroger professeur euh, Emmanuel Bassène bu université nekk Fann ñu ngi koy euh, nuyu au passage moom itam muy def liggéey bu am solo ci ci wàllu plant yi moom nee na sax gëm na tey que ni plante yooyu noonu ñu bëri tey faju nañ ci ci sax Covid bi wala peut-être mu prévenir lañ ci Covid bi te peut-être amaana xamuñu ko. effectivement déjà artémisia ñoo ngi koy wax. Mm-hmm. tey ji bari na Sénégal. Mm-hmm. Thiès ak léegi lu nekk ñoo ngi koy wax ni ñii naan dina faj Covid ñii naan euh, du faj Covid bon loolu waay waa waa ñi nga santé ñoo ko xam mais de toute façon xam naa ni am nañu ay plante yu nga xamante ni tey jii ci suñu dëkk bi wër nañu mën a faj parce que comme ni ñu koy waxee rek ndax nee nañu yàlla neena na réew nit ku nekk fa nga dëkk wàcce naa fa garab bu nga xamante ne boo feebaree mën na la faj. Mm-hmm. xool waa médecine traditionnelle ñu yoo ñoom ñu ñu weccante ay xalaat. Mm-hmm. boolante jàppante jéem créer dara lu nga xamante ne tey Sénégal mën nañ ci sukkandiku. parce que bu ñu xoolee suñu ay maam nañu wax ñoom boobu hôpital demee fa woon ni tey ne hôpital avancé médecine avancé mais lu ko woon te pourtant ñoom daawuñu am yenn problème de santé yi. Mm-hmm. parce que si plante yi rek lañ daan référé wu di ci faj kon war nañu mën a tey waa médecine traditionnelle collaborer ak euh, waa waa waa médecine ko ñu mën a ay solution mhm. si pas Covid seulement mais jàngoro yu bare. Mhm. justement tey naka nga gisee euh, li nga xam ne mooy engagement askan wi par rapport ak euh, wàllub feebar bi yaa ngi koy wax léegi nga ni euh, nit ñi gën nañu set. ak yooyu tey am na comportement yu bëri ma amaana lu bari des na mais am na yenn comportement yoo xam ne quand mm, tane na euh, tey booy xool même ci côté transport rek yooyu nit ñi nuñ doon tàncaloowee mu mu metti loolu yëpp tey jii euh, dañ na ndax li nga xam ne moom mooy moom mooy Covid bi tey naka nga gisee ni peut-être état ak nit ñi sax gérer wàllu feebar bi surtout côté baax barrière waa effectivement moom laa doon wax tey moom laa doon saluer sànq euh, ci suñu président li mu def ministre Aliou Ndiaye ministre de la santé de passage ñu nuyu waale ko aussi di ko rappeler waale que def nañ demande d'audience foofu mais jusqu'à présent gisaguñu réponse donc jël nañu ay mesures yi nga xamante tey jii permettre na askan bi tey ni ñu daan dundee ñu daal di koy wàññi si ñoom tey cet gi yokku na tey comme ni nga waxee transport en ku dugg yaa ngi takk sa sa masque yaa ngi def lii te ñoo ngi ñaan aussi mu continuer parce que buñ ko basé développé donc mesures yooyu ñu jël yëpp je pense que aussi après Covid yàlla na fi dem ak ak jàmm ñu mën a appliquer aussi yenn mesures de barrière yi cet geek euh, am habitude ne pas trop se saluer ñun moom da xam na sénégalais moom dafa bëgg bu saafantewul rek moom pour moom nuyoowul mm-hmm. mais quand même ñu éviter ko parce que mu mer waaw mu mer donc am na yoo xamante ne aussi nañ ko éviter parce am na virus yu njëkk Covid te dina am virus yu nga xamante ne ñoom ñooy topp ci Covid kon le mieux serait que ñu ànd ak cet ba tey jii lépp lu mën dal suñu kaw rek dina fekk ñun cet gi nekk na ci ñun balaa ba duñu sonal. Mhm. et puis yi aussi gën a conscient parce que ñoom bu ñu bàyyeekoo rek dañuy lor ñi ñu bàyyi seen kër mooy mag ñi. effectivement parce que tey booy xool li nga xamante ne moom mooy Covid bi. ndaw ñi sonal leen lool mag ñi la gën a sonal kon di du ko yow mi nga xam ne yaay xale xoolal sa comportement bi nga war a adopté ba tey jii doo lor kenn benn mag bi nekk sa kër xoolal sa comportement bi nga adopté ba yow sax tey jii sa organisme sa ay euh, sa système immunitaire doo ko yàq ci rien du tout parce que feebar bi dina am lu mu déstabiliser sa yow même bu la euh, yóbbuwul fenn dina am lu mu yàq ci yow kon ndaw mi war nga mën a sens euh, sensibiliser sa bopp. balaa sax nit ñu balaa ñu koy sant. Mhm. c'est important Euh, peut-être ndaje yi ngeen doon am. Mm-hmm. bi ngeen demee au niveau de parce que nee ngeen def ngeen cinquante poche mm-hmm. boo xamante ne jébbal ngeen ko waa euh, centre national de transfusion sanguine donc euh, tey jii aussi cinquante poche yooyu jot na j'imagine sauver beaucoup de vies mm-hmm. mais am na aussi benn polémique boo xam ne am na autour du sang dañuy faral des fois da nga koy da koy dégg ci yenn témoignage ñu naan ah man damaa dem woy dañ ma jaay deret beeg dañ ma ko lii c'est vrai que bon waa CNTS ñoom beneen explication lañ ci joxe que ne poche bi la ñuy jaay deret bi kenn du ko jaay mais c'est un peu flou daal xam nga ndax peut-être ndax am ngeen ay information par rapport ak genre polémique yooyu. non non ñun moom franchement amuñu information si yooyu noonu parce que ñun suñu mbébét lenn rek la. centre de transfusion mi ngi wax ni dafa soxla dafa nekk en pénurie de sang ñu dem may ko deret mais au delà que ne ñu ngi jaay pochette yooyu ah loolu moom wax dëgg yàlla ñun mënuñu ci ah, xamaguñ ci dara comme que ñun euh, nous sommes récentes donc am na yu nga xamante peut-être ci biir xamaguñ ko mais ay affaire de jaay ak yooyu ñun moom yënguñ ñun moom may joxe maye rek la ñu xam après dem. <laughs> parce que xam nga euh, liñ naan des fois yenn réalité ci hôpitaux yi euh, boo demee hôpital ci nga koy xam parce que nit ñi dañ ci yenn mbir yi nga xam ne dafay xew euh, des fois sax nga ñëw euh, ci loo xam ne dafa war a gratuit ñu ñu la koy jëndloo man temps yële j'ai benn frère boo xamante ne dafa subir opération fay quatre cent et quelques mille mais mu dem clinique bi naan ko pour mu jënd bandage de rechange xam nga loolu dafa doy waar ku fay quatre cent et quelques pour def benn opération ñu lay laajaat encore ay bandage peut-être loo xam ne jarul sax cinq cent non loolu moom loolu moom xel sax waru ko waru ko xol sax waru ko nangu ak xel parce que yenn somme d'argent yi bu ko nit wax ni nit ñi dañ koy jaay wala loolu loolu je pense que parce que ñun ñi nga xam ñooy joxe suñu der ñu ko te sans mm-hmm. euh, kérosène la mu nekkul lu nga xamante ne dañ koy fabriquer nekkul li nga xamante ne tey ji facilement mën nga ko am nit moo koy génn ci nit jox ko nit te ñun dañ koy maye gratuitement kon je pense que ñun ñi ñëw indi def gratuitement yow mi nga xamante ne da nga feebar soo ñëwee war nga mën a am accès ci sang bi gratuitement aussi mm-hmm. loolu moom moo gën a tax sax ñu gën a def plateforme d'alerte bi maanaam yamuñu ci don de sang ñu li ñu gën a yitteel moom mooy nit ku jóge fenn du ñu sax xam yaay kan nga am problème mu deret sollicité ni ñu xam ne ah ñun kat suñu deret dem na ci diw ñu loolu moo moo ñu gën a yitteel bien vrai dañuy def don de sang mais loolu aussi nekk na li nga xamante ni suñu yitte la. Mm-hmm. Mm-hmm. li des ci émission bi bariwul. peut-être dañuy ñëw ci euh, encore une fois seen projet yi ngeen am ci côté surtout région yi yaa ngi koy wax sànq bëgg ngeen def ay antennes un peu partout pour un peu euh, xool daal nu ngeen di aussi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk euh, ci région yi te duñu am accès ci yenn structures yi nga xam ne quand même tey fii CNTS ak yooyu mais peut-être dans les autres régions amuñu peut-être facilité boobu ci ci ci ci wàllu woowu waaye ouais, effectivement dans les autres régions ñoom comme que seen banque de sans yi souvent euh, ci région yi lay yam mais boo duggee ba ci biir village yeeg yooyu xam ne day sorek mhm. tellement ak ville yi ñooñu amuñu possibilité boobu donc je pense que ni war nañu mën a mettre en place ay ay euh, ay annexe su ma ne su ma ko mënee wax yu noonu wala ay ay ay ay mini structure yu nga xamante ne dina permettre village yooyu war a mën a am ay poste de santé yoo xam ne dina leen permettre ñu war a mën a am def don de sang ak aussi di faj seen wérgu yaram parce que tey jii ki nekk village war def ay kilomètres pour dem ci ville bi loolu aussi war nañ ko dépasser surtout vingt et unième bi ñu nekk am na yoo xamante ni war nañ ko mën a mm-hmm. dépasser. Euh, parce que sax même au delà de affaire u deret da ngay gis tey koo xam ne pour une petite analyse bu ndaw dafay jógee Ziguinchor Tamba jógee Mbour Thiès feneen ak feneen juste pour ñëw tey au niveau de peut-être l'hôpital Dantec ou l'hôpital Fann. mu ngi noonu nag loolu moom moo tax tey infrastructure yi ñu war ko gën a mën a def ci région yi ba pare améliorer suñu euh, hôpitaux yi ñu nekk ci région yi maanaam il faut ñu doter leen autant li ñu soxla ñu ñu jox leen euh, matériel. bu yi ñu soxla aussi recruter aussi ay médecins parce que nit ñi léegi gis nañu euh, xale léegi ñu ngi jàng bu baax il faut que aussi état di recruter ay jeunes pour que ñu ñoom aussi ñu mën a service seen ay régions parce que tey koo gis rek mi ngi naan Dakar laay faju jee Dakar mais pourquoi pas sa région nga war fa mën a faju donc alors que yow tey jii ki docteur Nangam euh, euh, mën na kale euh, nekk ko une personne très importante te fekk mi ngi dëkk Ziguinchor wala mi ngi dëkk pourquoi kooku servirul dëkkam ñëw Dakar donc war ñu décentraliser li nga xamante ne moom mooy. compétence yu nit ñi ci région yëpp. Mm-hmm. surtout aussi nit ñi tamit di respecter lu ñu naan pyramide sanitaire parce que tey sa bopp day metti nga euh, tëb poste de santé bi tëb centre de santé bi nga dem directement hôpital donc yooyu tam nit ñi aussi foog ñu xam ko te et puis aussi mu gën a yeewu ci li nga xam ne moom mooy ay droit am en tant que malade loolu c'est important parce que tey charte du malade dafa mais euh, bëri na ci ay askan bi ci ñoo xamante ne xamuñu ko. déjà xamuñu seen droit sax personnellement pour wax waxuma ak droit santé. Mhm. donc euh, nit ku nekk aussi war nga gëstu li nga xamante ne moom nga moom. aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi tamit euh, ñu leen di lancé appel tamit suñu di rafetlu seen liggéey muy euh, sage-femme yi médecin yi ñëpp ñu ñu ñaan leen aussi ñu gën a am accueil bu chaleureuse. si ñi nga xamante ne waa ñooy ñëw parce que nit ku feebar bu ñëwee am na nooy dalalee xelam rek wala am na nooy waxanteelee moom rek. la ko doon metti duñu di jeex mais dina wàññeeku donc loolu aussi ñu ci ñaan euh, ñi liggéey ci santé ñu gën ci fag ñu gën ci euh, farlu macha allah. Mm, loolu moom quand même c'est un réel problème ba sax euh, ministère de la santé defoon nañ fi ci benn alerte sax et tout accueil yi moom dans les hôpitaux c'est catastrophique. Mm-hmm. dafa dafa dafa metti waa metti na trop parce que nit ñaa ngi koy bu dégg bëccëg ñàkk kersa gi ci nekk ñaa da leen di ñàkk kerse da leen di def li da leen di def la donc ñëpp ñoo yem tey jii ki nga xamante ni mi ngi ci santé dina soxla ki nekk ci banque ba dana soxla ki kiy liggéeyee faneen te kaka ñëw sa santé ba moom mooy peut-être moom moo nekk si si mairie bi moom moo nekk ci beneen liggéey te boo fa demee doo ko ñàkkee kersa du doo bëgg mu ñàkkee kersa la ko boo amee benn dossier boo bëgg mu traité la ko kon euh, je pense que ni war nañu xoolaat bu baax ne ñun la dans nous c'est nous dans nous sénégalais la sénégalais bi amul benn sens nañu waxtaan dalal nit ki te boo euh, engagé woon ni médecin nga rek li gën a nekk sa sa sa sa sa objectif moom mooy la am dal mën a rassurer malade bu la leeree ni malaat bi day dee sax du génn ci feebar bi am na nooy mën a waxee ak moom ba dalal xelam ba dina dee dee bu sedd macha allah. Mm-hmm. Euh, loolu moom parce que man am na benn émission bu ma def dafa ma marqué émission boobu parce que la dame dafa am ndeysaan insuffisance rénale mais mu may mu ne bi mu bi mu demee euh, boobu xamagul ne sax moom dafa war a dem dialyse maanaam dafa dafa am insuffisance rénale am na li nga xam ne moom mooy. parce que c'est pas que am nga S24 que dem jali dafa am ay étapes donc moom dafa dem ba benn moment am malaise et tout sonn ci côté liggéeyam muy gis ne daal wér gu yaramam demeewul noonu mais dafa dem tak hôpital mais fekk fa médecin bi ko doon traité mu fekk fa keneen dafa dem rek mais kooku annoncé ko du manière bu désinvolte boo xam ne ne ko mais il faut que nga dem dialyse nee na elle a failli maanaam dee foofu sax parce que tellement affaire bi daf ko choqué woon. waaw loolu li am na yoo xamante ni manque de professionnalisme lañ koy moom laa la wax léegi tey boo engagé woon ne yow da ngay da ngay faj da ngay faj nit ki li nga war a njëkk jàng ci yow moom mooy lan am benn sens de l'écoute am nooy accueillir nit. tey jii nit ki dafa am moom laa la wax da nga koy dalal xelam ba li nga xam ne doon na metti ci moom du ni du daj de mais dina wàññeeku donc il ñu bàyyi xel bu baax comme ni ma ko waxee rek leen lancer woon appel euh, suñu mbokk yooyu noonu mm-hmm. à que ñu gën a mën a dalal nit ñi bu ñu ñëwee ndax ñun la rek seenu daanu euh, pour en revenir un peu ci côté don de sang bi bu ko defee ñu daal di jeexal mm-hmm. ñu mayaat la kàddu gi peut-être nga ñëwaat ci euh, seen appel yi ngeen di lancer seen i objectif yi pour nit ñi gën ko xam comme c'est une association bu récente 60 bu ko defee bu dee da ngeen bëgg tamit euh, autorité yi jàppale leen et bu ko def parce que koppar yeeg yooyu financement yi loolu c' est pas évident loolu foog ngeen am ay partenaires ak euh, ñu jàppale leen pour ngeen mën a dérouler seen activité comme cela se doit. waaw effectivement comme ni nga ko waxee rek euh, association bi nekk na association boo xamante ni c'est solicité ñëpp ñu sollicité ñëpp ñu soxla parce que donneur universel mooy loolu. Mm-hmm. donc euh, ñu ngi lancé appel solennel euh, ci émission bi te yaakaar nañu di son excellence Macky Sall dina ko dégg sa tendre dame mais ministre de la jeunesse ak toute autre bonne volonté ñu ngi lancé appel à ce que ñu ñëw jàppale dooleel li nga xamante ni moom mooy association bi même Saint-Louis bi ñuy waaj dem aussi monsieur le maire ñoo ngi koy lancé appel aussi ak autorité fa nekk yëpp autorités parce que man Saint-Louisienne la mhm. donc bare na ay autorités ñu ngi leen di lancer à ce que ngeen ñëw jàppale association une telle association boo xamante ne existé wul parce que gis nañ fi association bu nekk mais association qui regroupe uniquement la famille au de donneur universel aussi kon boobu amagul ci te je pense que war nañ leen dimbali d'autant plus que ñun dañu jug rek pour dimbali suñu askan jouir de nos actes de citoyenneté kon état war na mën jàpp ci association parce que dañuy génn yamuñu Dakar dañuy génn dem ci ay région te loolu nécessité na yenn moyens logistiques yi aussi donc euh, ñu ngi ñaan euh, suñu excellent Macky Sall bu ko déggee. Mm-hmm. ak bonne tout autre bonne volonté ministre de la santé aussi surtout moom aussi nga xam ci wàllu wér gu yaram lay lay yëngu ñu ngi ko koy lancé encore comme ni ma ko waxee woon rek defoon nañ fa demande d'audience yóbboon nañ fa ñaar yoon lettre mais jusqu'à présent euh, ñu retour te je pense que une telle association war na leen jàppale kuy dimbali vie di sauver ay vie donc je pense que ñooñu ñu ñu ñu war dimbali lañu. macha mm-hmm. allah voilà si nañ ci njeexital émission bi ñu may la nga tàggatoo ak mbokk auditeurs yi waaw maa ngi lay remercier bu baax Oulimata ci invitation bi donc euh, di nuyu samay parents depuis Saint-Louis. Mhm. Euh, samay euh, sama grande sœur depuis Bargny donc di nuyu aussi waa membre ADUS ñoom Astou ñoom Ndeye Fatou Madiagne su ma limee damay juum Ibou ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di remercier di jël loolu yëpp di ko teg ci loxo Jules Diallo. Mhm, waa di ko teg ci loxo Jules Diallo parce que tey jii lii yëpp su amee c'est grâce à lui donc di ko teg ci loxoom di rafetlu aussi liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy doxal ci biir mhm. di nuyu waa remercier aussi samay membre franchement ñoo ngi remercier bu baax membre yi parce que à chaque fois bu alerte amee rek dañuy njëkkante yàlla xam na ko ku ci nekk danaay damay dem damay dem damay dem damay dem donc ñu ngi leen di ñaan motivation boobu ñu am engagement boobu ñu am yàlla bu mu mës a dañ donc maa ngi leen di seen di nuyu bu baax di leen baalu àq nag yenn saa yi samay wax ak yooyu déjà xam man moom damaa xaw a kii mais ñu comprendre juste c'est pour bien faire euh, FM. By ñu lay ñoo lay remercier bu baax a baax ci euh, euh, disponibilité mais aussi ci initiative ak engagement bi nga xam ne am ngeen ko parce que quand même jeune moom ci lii lañ koy xaar def loo xamante ne dina njëriñ sa société te je pense que y pas mission plus noble que li nga xam ne moom mooy don de sang nga xam ne dafay sauver des vies dañ lay remercier bu baax may fàttali mbokk yi tey ñu ngi doon dalal Yacine si moom mooy kon euh, président association des donneurs universels de sang donc ñoom ñu ngi nekk nag ci groupe bu ñu naan kon euh, au négatif donc au négatif groupe sanguin boobu nga xam ne ñoom ñoom ñooy mën a may ñëpp deret donc di ko remercier bu baax a baax encore une fois di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci association en particulier Souleymane Diallo sama doomu boy boobu nga xam ne il est très engagé moom tamit euh, vraiment di ko remercier bu baax ci dirigeante gi mu dirigeante émission bi di jaajëfal auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig 19h di fàttali ni aussi mun ngeen dégluwaat émission bi ci euh, www.rewmi.com ci sunu site euh, aussi sunu chaîne YouTube euh, mi officielle di leen jaajëfal bu baax di leen wax à vendredi prochain.